lu yëngu nag la ko yëngal ko ëpp doole li waral ñu ñëw fii ci Bambilor ci heure bi li fi xew dafa doy waar lool te yéeme fii la di wax ne daal Sénégal loo ne amu fi am na fi loo xalaat ne nit sañu ko nit sañ na lu ko raw bun gaawul nag yéen autorités yi bu yen gaawul caterpillar yaa ngi ne day ñaaw gaw gas fii bu gas fii rek lambaay ñaaw ñii nag danoo bàyyi ba élection yi dem ba nga xam ne que mi ngi ñëw ñu profité yàkkamti ñëw euh, signé loppa bi lu mat dix hectares lañ leen dëbb linjaa seen a moo ko def seen a nag ay indien lan dégg naa te te ñëw nañ nag xupputal paa bi indil koy jafe-jafe tegal ko lu metti ba nga xam ne que dafa tiit indil koy gendarme loo ko dëkk bi gis ngeen mi ngi nii kon nag sama suuf si ñoom dañ maa waxoon loo xam ne bi ñu waxee dara du ci dëgg. mbir mi nan la la demee ndax mi am na fanweeri at ba man ko moom mën naan rek ca cosaan ba léegi rek. 1993. Hmm. waaw ëpp na suuf loolu. Hmm. kon ñoom ñu ne ma suñu titre foncier la ma ko jënd kenn ma ko kenn saraxuma ko. kon nag lool xam nga di ki fukki hectares yu topp ak genn wàll du du yoon. Hmm. kon loolu. loolu bi ñu ko waxee sama njaboot bañ nañu bañ gi ñu bañ ànd naa ci. ànd nga ci. ànd naa ndax xam naa ne du dëgg ndax li mu waxoon lépp du dëgg. du dëgg waaw garab garab goo bëgg ma nga fa. garabu cosaan yi am kajoor yëpp am na fa. nga xam ne ñu ci xaw xëy xëy daane ko daane. mu du simote kon ak tabax ya waaw man nag waa kër gi léegi nee na at nañ si jaay suñu bakkan ak ñu si si man ñëpp. ndax ñu kenn. saaxal na ko nangu sama njaboot yëpp bañ nañu yàlla képp koo xam ne nitu dëgg nga nitu at yoon nga loo ci xam nga jàppale ma ci. Mm. ba sama ndam lii ma am ko ci sama. suy xaaral ma jox numéro président Ousmane Sonko. ngir yàlla wooteel ci numéro bii. président Ousmane Sonko euh, woote 76. 683 94 01 di nga jot doomam di am sa Diop 76 683 94 01 am na WhatsApp di nga jot am sa Diop mu wax la nu mu demee. beneen bi 77 543 03 03 di yor alalam ay ñii ñuy wax seen ganja seen seen seen ginja ñëw ak SN HLM bëgg a teg suuf ci ay hectares am lu war a ma 10 hectares yu topp tuuti hmm. valeur ay milliards ñu bëgg koo jël nii mu yomb de yomb loolu moom duñ ko ah. bàyyi noonu moom moom xam nga lii si mais tooñ gi daal dafa ëpp rek far tooñ gi ëpp na hmm. ak sonal gi ëpp na lool hmm. loolu nag laa bëgg état beeg jomaa yeeg Bachir ak ñoom ñëpp. Mm. ak Sonko ak waa réew mi yëpp kuy atte dëgg. Mm. di ko tàmbale ci xalifa général de Mouride. xalifa général de Tidiane ak képp koo xam ne nekk nga ci réew mi. Mm. dégg wax jii loo ci man ci nga jàppale ma ci. mi ngi woo ñëpp président Diomaye président Ousmane Sonko. ngeen jàppale ko bu baax a baax ci suufam si lii nag du lu ndaw valeur ay milliards la. tey nag mi ngi Bambilor pour ku bëgg coowal Bambilor li ni coow El ma Massamba Diop mu ciment moo nekk nii mooy borom mu doon valeur ay milliards. ay milliards ñu bëgg a jël ay quelques millions teg ko ne laaluñu seen xaalis teg nañ ko foofu ñoo dem leen jël seen xaalis ak seen i sec te indil ñu suñuy teere ci jàmm ak salaam jàmm leen bëgg ah. loolu rek mooy dëgg. mooy dëgg kon jël jël nañ huit hectares actuellement. ñoom daal ñu ngi terrassé. commencé nañ jaay nag ñoom. commencé nañ jaay bay ñu gaaw parce que ñoom commencé nañ jaay ay clients. commencé nañ ñaa ngi fi ñëw di jënd. njaa ngeen yéen ñiy jënd ngeen bàyyi xel ne am na jafe-jafe euh, ndax lan kii di suñu papa di El Hadj Massamba Diop Euh, téere yi mi ngi ko am 1993 31 ans lépp fanweeri at nit ki yor alalam nga ñëw ba heure bii ay 2024 nga bëgg koo dëbb linja loolu président Ousmane Sonko du ko seetaan président joma Faye du ko seetaan. fi fekk waa Sénégindia ak waa euh, Sen HLM. Mhm. bëgg jël suñuy terrain ak préfet bi bëgg a jël suñuy terrain yoo xam ne toll na ci dix hectares. Mhm. waaw léegi ñu bëgg ñu jaay doole. bëgg ko mhm. jël tëb. ñoom xëy benn bis. signaloo góor gi benn acte de conciliation boo xam ne préfet Abdou Khadir joob moo ko moo ko kii moo ko jiite. Mm-hmm. bon bi ñu ko signalee moom ba mu fay dem dix heures la fi la jógee ca kër ga ca vingt heures la ñibbisi ci mag moo xam ne am na quatre-vingt-dix ans mm-hmm. waaw léegi nag ñun njaboot gi ànd ñu tey ànd ñu ci ëllëg ñu nag ñu nag ñi fi dajee ñëpp nag ku nekk am nga ci wàll. Mm-hmm. on nous a délesté d'un bien. étant donné que ce ce champ on l'occupe depuis dix neuf cent quatre-vingt-treize bon étant détenteur d'un acte administratif mm-hmm. nous nous pourrons tolérer telle une telle euh, euh, procédure. xanaa ba kenn ah, tëdd ah, ah. xanaa ba kenn tëdd fii kon dañ ne dañ ne dafa ñu koy yóbbu ñu rey ñu mm. dem nañ ba kuy dem ba natt suuf dërën dërën mm. nga koy natt suuf dërën kon kay nekkoo ci yoon. kon waa Sénégindia yi ak SN HLM. nan teggi loxo ci alalu jàmbur loolu Descos tamit bu ci defee dara mu dindi ci lim ci def ngir loolu rafet bu baax a baax. alalu réew mi pour waa réew mi la. kon Cheikh Bara Ndiaye maa ngi lay wax président Sonko yëg ko léegi Birame Souleye Diop Sonko Sonko yëg ko léegi Diomaye yëg ko léegi ñu taxaw ci léegi comme Diomaye na mu defee woon ci coowal ndeg leer la lii amaat na fi ay góor ay mag yi fi toog te kenn du dox seen maay bu baax a baax. waaw yéen ñi tag te yéen jënd nag ngi ci risque Sénégal parce que fii am na coow de yi am na coow dugal sa xaalis ba pare coowal suuf amoon na jamono ji régime yi njëkkee mais régime président Diomaye ak Sonko moom dëgg rek ak leer moo fi am kon ngeen bàyyi ko xel baax a